dissolution parti bi am na lu ko jiitu loo xam ne tamit xëy na bettul woon kenn ndax yaa ngi koy wax sànq bi nga dégloo euh, le procureur avant par rapport ak charge yi nga xam ne teg na ko ci kaw Ousmane Sonko euh, bëri woon na lool donc te mandat de dépôt bi euh, ñu bëri dañ ko doon xaar ndax bokk nga ci ñi nga xam ne jàppoon nga ne suite logique li ñu dund yëpp la depuis mars 2021 xam nga matière de justice pour man du logique parce que am na ay charte am na ay règles yu koy wax ni juge bi jël décision ba ñu jàpp nit juge boobu jël jël na décision bu ñu bàyyee nit. donc droit moo xaw a sew. et malheureusement sénégalais Sénégal ñëpp ay juriste noonu damay xool gis ay débat télévision nit di wax loo xam ni daf lay wóor ni la jàng ko. Mm-hmm. wala ba muy ñëw. waxtaan nag ku am xam-xam ci droit mu wax ko bu ñëw tax bu ko defoon man nag loo xam nag ama ci xam-xam du ma ci mën a xuus du ci mën a sore donc loolu dañuy bàyyi ñi nga xam ne ñooy juristes yi peut-être bul toogee dinañu mën a leeral lu bare bare ci li xew suite logique la du suite logique am na ci loo xam ne am na nanu may ñi nga xam ne yaakaar naa seen xam-xam màcc nañ ci ñu mën ci sore ñoom. Mm-hmm. mais le discours de Ousmane Sonko depuis depuis euh, kañ laay wax sax mars 2021 bi accusation viol yi amee euh, boobaak léegi discours bi ni nga koy déggee ni nga koy gisee ak li mu jur ci conséquence selon le procureur yow nax naka nga ko gisee. xam nga euh, violence tey am loo xam ne boo ko wootee mën na am ni buy dal dina daw sa kaw te liñ doon doxalee. woote ak yenn wax yi sax yoo xam ni peut-être euh, décence du nu may ñun ñu ñu di ko répété. Mm-hmm. rafetlu wuñ ko rafetlu wuñ ko parce que du loo xam ne wax ju jëm ci askan wi nit ñi mën nañ wax ak nit ñi ci wax ci yar ak teggin mais ci nam ko doon waxee ci xel dama du ma ni fugg jeunesse la. parce que du xale xam nga boo xasee ba am lépp quarante cinq ans dootoo xale. Mm-hmm. bon war nga mën a am. dal mais nag lépp li mu ko jàpp ci entourage la ak équipe dama yaakaar ni Sonko n'est pas bien entouré. du ma ne il n'est pas bien entouré mais dama ne bu fekkee ni dinay waxtaan parce que nit da war am équipe. Mhm. man du du damay toog rek ñëw ci télévision wax am na ñoo xam ni euh, duñu ay militants duñu ay sympathisants dinañ ma artu ni ma ci fii fii fii ñu lay wax dëgg. di ma wax dëgg. Mhm. parce que yoruma seen dépense yor seen kër. Mhm. te dëgg kooku ci may wax bu ma ko teggee teg ko fale bàyyi ma ca la may def moo politique ma bëgg ko te du tey ñu ànd ak man bon nit war nga ànd ak ay nawle nit war nga ànd ak ñoo xam ni jox nga leen cër ba ba laataa ngay wax ba laataa ngay def nga mën cee diisoog ñoom bu fekkee nag da nga dem ba juum nga xam ne diisoog ngeen ci waaye bu fekkee mbir mi ci yow kese la jógee euh, ça devient plus compliqué. Ousmane Sonko pourtant il est euh, bien entouré parce que bu ñu gisee ku mel ne Khalifa Sall mu fréquenté ko ci ay jamono ku mel ne Déthié Fall euh, nekk un brillant polytechnicien ku mel ne Aïda Mbodj nekkoon député ay yoon yoon ku mel ne Habib Sy ak ñeneen ak ñeneen donc tey jii nii naka lañ mën a comprendre que yu mel nii mën mën ko mën ko arrivé. dafa am ànd koo xam ne ànd circonstance la <laughs> te am loo xam ne man dama ko miinul sax ci politique damay dama am yàgg ma jaaxle ma ni bi ñu demee ba ñu ne wooye ay transhumants. Mhm. ñu dem ba nangu ko te transhumance ñu xam ko ci animaux nga toog tey gis di damay ànd ak yow ma yow suba teel bàyyi la ànd ak keneen koo xam ne mosu luñ juboo ñu mel ne Mburok Sow ça pose problème parce que ñi nekkoon ci seen coalition. amuñu main mise ci Pastef muy ñu leen wax ne leen wax leen lii baa ngeen def leen xal mhm. Khalifa Sall dafa am fu mu bokk taxawu Ndakaaru. day wax ak Barthélemy ñoom amuñu je ne pense pas euh, influence bu nu mën a wax ni ko lii ngay wax baa li ngay def la preuve temps yi ba set am na réew seen biir. Mhm. li ko indi mooy wane ni li olof di wax ànd ak boo gis. tàggoo jëwante lay mujjee mm-hmm. donc am na ci loo xam ni bu dul dëgg faaw mu éclaté ànd bi dëgg la